De retour dans le réveil de ce matin en tout cas il est 8 euh, heures passées de 12 minutes euh, li ñu fi euh, dese bokk na ci les deux chroniques des vendredis chronique de Moustapha Diop et de Cheikh Tidiane Gomis Cheikh Tidiane Gomis arrive vient de nous rejoindre sur le plateau euh, bonjour Cheikh. maa ngi sant yàlla. di julli ci yonentam bu tedd bi Mouhamed sallallahu alayhi di nuyu euh, Moustapha euh, Diop honneur aux hommes ba pare nag di soog nuyu nag euh, ki nga xam ne moom mooy Salma borom communauté bi communauté ñoo tam di lay nuyu voilà waaw bu si keneen waxee damay ñëw mm-hmm. actualité obligée mm-hmm. moom mooy li nga xam ne moom mooy liste bi mm-hmm. dans à dix heures Aliou Cissé da koy maanaam fësal mhm. ñu xam ñan ñooy dem eh, ca kaan en tout cas ci lu ma yore dañu ne liste bi fuité la. loolu laa di waaw man xool naa <laughs> xool naa ko ba sax xoolaat ko mën na am nag mën na am parce que xam nga rek gars yi ñoom dañoo kii mhm. dégg nga parce que yéen dafa am benn guerre bu ndox bu am fële au sein de la fédération yooyu yëpp mun na ci am bon d'accord léegi nag nañu na nga yaatal sa sa sa ñàngat bu soobee yàlla ñu ngi fi également ak euh, Moustapha Diop comme euh, tous les vendredis non comme les demi vendredis des mois ñaar la ci moom yeneen ñaari <laughs> Pa Assane moo koy moom Moustapha bonjour <laughs> c'est très bien c'est très bien bonjour bu baax di nuyu euh, Cheikh Tidiane góor gi ci ruq bi di nuyu euh, Salma ak euh, Sénégal yi ñuy seetaan yëpp ak fu ñu mën di seetaane mm-hmm. à travers le monde ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di ma li kii di wax rek buñ deer live def naa yaa ko waxoon keroog buñ mm-hmm. deer live am ñoo xam ne ñu ngi ñuy seetaan à 10 mm-hmm. heures ñenn ñi à 8 heures minuit fu ñu mënti leen nuyu di leen ziar. ñu ngi lay ziar bu baax a baax Moustapha di rafetlu également sa teewaay ci plateau bi comme euh, chaque vendredi. alors euh, comme tous les vendredis euh, la Pierre di ma dégg. yow Salma ñu bàyyi la ak Moustapha Diop. waaw ngi noonu ñu koy <laughs> ziaraat. émission yaa ngi bëgg a rek big rouge yi après émission. fallait pas dire ça duñu may dara. ay Niger yooyu yëpp dara ci <laughs> kaala toppkatu kaa la action la. Hmm. Euh, ñu koy ziaraat encore une fois moom Moustapha comme euh, euh, chaque vendredi wala comme. ni saa rek ñu waxtaan ci actualité. <laughs> pour mu yomb mi ngi donc aujourd'hui dinañu waxtaan ci mbirum conseil constitutionnel ku ne xam na ni nag jamono ji les faits d'actualité il daal le dernier mot moom le conseil constitutionnel ginnaaw candidature yi nga xamante ne déposé nañ ko euh, ci foofee donc euh, dinañu waxtaan bu baax a baax tey jii ci décision yi nga xamante ne moom la ñuy xaar mu tukkee ci ñoom bu ko defee ñu mën a fixé wu ci yan candidat ñooy dem officiellement ci jogante njiital réewum 2024 boobee ci dan la ñu mën a xaar tey ci sept sages yi waxtaan aussi ci investiture u Ousmane Sonko bi nga xamante ne mm-hmm. annoncé nañ ko ni ki samedi le 30 décembre euh, entre autres points yu nga xamante ne dinañ ko waxtaanee Moustapha mais on va commencer par euh, ces nombreuses candidatures yi nga xamante ni euh, conseil constitutionnel recevoir nañ ko il y avait 260 candidats mhm. déclarés wala candidature déclarée mais finalement je pense qu'on a eu 79 ou même plus yu nga xamante ni jot nañu déposé seen candidature lan la ñu mën a xaar tey ci cette sage soo nee dañu jugee euh, deux cent soixante six dem ci soixante dix neuf am na ñu ne sax quatre vingt dix. Euh, euh, bokk na ci lima ma li ma liir. cela veut dire simplement que ni. filtre boobu ñu woowee parenage mhm. wàññi na ay tappalekat déjà. Mhm. mais mais wàññiwul lépp. et li ma bëggoon a njëkk retenir ci le conseil constitutionnel en tout cas bi gars yi déposé ak léegi mooy j'ai l'impression que ni le conseil constitutionnel jox na déjà une leçon à l'administration sénégalaise je m'explique mooy conseil constitutionnel cette fois-ci je ma am impression que dañu fonctionner comme ni ñuy def dans les banque c'est-à-dire que tey bu ma ñëwoon ci banque man ñu ne il est midi moins cinq la banque ferme à midi ma dugg ci banque bi toog àgguma ci guichet bi banque bi ce qu'elle fait bu di jotee mooy day tëj bunt yi mais ñi ne ci biir ñëpp dana leen servir avant ñuy dem mm-hmm. donc le conseil constitutionnel dama dama seetlu ne dafa gis ne soixante soixante soixante dix ñëpp ñëwandoo nañ pour mm-hmm. déposer mu ne garaawul le conseil va recevoir tout le monde. Mhm. je crois que jusqu'à hier avant-hier gars yi ñu ngi doon continuer di yóbbu seen ay dossier de de candidature et pourtant mënoon na def comme waa DGE wala ñu mel noonu di jaay ay dëgër bopp ak ay jaay ngan ngan lu yooyu. Mhm. ne tëj nañ seen i bunt les retardataires ont toujours tort. le conseil n'a pas fonctionné comme ça man je pense que c'est déjà une leçon que le conseil constitutionnel donne. Mhm. à l'administration sénégalaise en tout cas suñu comparé ni directeur général ak euh, des élections doxee noonu la conseil constitutionnel doxee et c'est mhm. ce qu'on peut attendre des dégg naa dem Ibrahima ànd expliqué ci lu am solo mhm. suñu continuer ci ci loolu man dama naan les candidatures yu bari yi man nañ ci am lecture yu bëree bëri mhm. bi ci njëkk man dama jàpp ne c'est peut la preuve d'une vitalité démocratique. Monsieur Faye excuse-moi on me mhm. dit que sunu micro yi day def écho. donc bu ñu ci mënee jàppale rek. wàññi ko tuuti rek comme ça. alors dama jàpp ne d'abord. Mhm. Euh, preuve vitalité démocratique la li tax may wax loolu. Mhm. mooy ci jeu électoral. euh, être président wala être député wala être euh, ministre wala leneen waruñu ko réserver benn caste. Mhm. waruñu ko réserver benn groupe de personne c'est-à-dire que Sénégal warul nekk réew moo xam ne dañ naan ku amul ay koppar ba bari le ko lool. Mhm. mënoo nekk candidat à la présidentielle. Mhm. mënul nekk réew moo xam ne dañ naan ku amul ay mbokk ci réew mi ba bari le ko lool mënoo nekk candidat wala ñu ne ku fi amul ay taalibe wala ñu ne ku fi amul parti. tout Sénégalais Cheikh Tidiane Gomis Moustapha Diop la prétention d'être candidat à la présidentielle et je pense que lii di am ni wane na ko et dama jàpp également que ni lii di am nii wane na beneen biir moo di ne finalement finalement li ñuy woowee parrainage ñu ne filtre la ñee ne la mm-hmm. en soi c'est pas une mauvaise chose peut-être niñ koy defee moo baaxul mais tey suñu imaginer woon tey ñu ne parrainage amul dara amul. Mm-hmm. mais est-ce que tu te ne le conséquence constitutionnel peut se retrouver avec deux cent soixante dix dossiers de candidature. yoo xam ne da ko war a traiter. parce que ñooñ mm-hmm. ñooñ ñëpp ñi ngi jëlee des ñu ci bari ci ñoom li leen tee dem mooy amuñu soit. parrainage wala amuñu caution moo tax àgguñu mais su fekkoon ne bu parrainage amul caution bi toll ci un million peut-être wala cinq cent mille ce qui est sûr mooy le conseil va se retrouver avec deux cent soixante six dossiers de candidature donc le parrainage en soi c'est pas une mauvaise chose man dama jàpp ne ni ñu koy defee ci réew mi moom moo baaxul mais également mën nga ci am beneen lecture lecture mooy lan mooy le parrainage ne règle pas finalement tout mhm. parrainage bi réglé wul tous les problèmes parce que bu réglé mhm. wala quinze ñu xool ñan ñoo ci kii ak ñen ñoo ciy wul mais mm. tey da ngay xool ne les plus ñu mën a woowee les plus grands candidats. mooy oui. le du parti au pouvoir. Mm-hmm. parrainage élu la demee loolu la ñu mm-hmm. wax. Ousmane Sonko parrainage parlementaire la demee. xalifa mm-hmm. Ababacar Sall je crois que loolu laa lire. mais Karim Wade aussi. nga xam ne ñooñu mën na leen considérer comme disons de grands candidats je mets des guillemets bien sûr. mais malgré tout ñu ne la am na deux cent soixante dix wala deux cent nangam yoo xam ne dajal nañ ay parrainage pour dem. mais ça veut dire ak la caution bi ñu yóbbu à trente millions de francs mhm. ça ne ça ne règle pas tous les problèmes beneen bi mooy man dama seetlu benn affaire troisième niveau de lecture mooy man wax dëgg yàlla depuis que ñu commencé di wax ci affaire candidature ak mm. déclaration de candidature man recevoir na ay candidature fii ci Walfadjri soit sur le plateau la wala dans mon bureau mm. taal naa sama oto dem ci ay këru ay candidat di waxtaan ak ñoom mais dafa benn lu ma seetlu Cheikh mm. mooy gisuma ci benn candidat boo xam ne moom gëmul ne mën naa gagné <laughs> man parfois je me dis suñ bi est-ce que dañoo dof wala dañuy gént wala qu'est-ce qui se que koo ci rencontré Cheikh Tidiane muy ñëw fii ak ñeneen foo leen mën ci rencontré bu la tegalee discours ba pare da nga naan kii moom day gagné. Hmm. je sais pas man nag loolu li ko waral euh, defe naa ne lenn la mooy ñoom ñëpp dañoo d'accord ci benn affaire ñoom hmm. candidat yooyu. Hmm. li ñu d'accord ñoom ñëpp. ils sont tous d'accord sur ça. mooy l'élection du 25 février 2024. bu ci Ousmane Sonko bokkee ils n'ont aucune chance. Mhm. loolu moom ñoom ñëpp d' nañ ci kooku moom maa la ko wax. Mhm. d' accord nañ ne si Ousmane Sonko est candidat ils n'ont aucune chance moo tax je dis souvent que ni le fait que Ousmane Sonko nekk candidat wala mu bañ koo nekk c' pas seulement l' affaire du pouvoir ah. tey jii c' est c' est plus grave même du au, au, au, au sein de l' opposition parce que bari na ci opposants yi ñi ci ëpp pour ne pas la totalité. am nañ claire conscience que ne si Ousmane Sonko est candidat le 25 février 2024 ils n'ont aucune chance d'aller mhm. loolu ñoom ñëpp mhm. nga xam ne <laughs> les candidats yi nañ ci mooy si Ousmane Sonko n'est pas candidat l'élection est ouverte ku nekk mën naa gagner for lay doon sëgg loolu dama koo seetlu ci waxtaan yi may waxtaan ak ñoom c'est-à-dire que ils ont la claire conscience mhm. for lay doon comme dit Salma c'est une élection ouverte et je dis qu'ils ont raison nag de penser que c'est une élection ouverte pourquoi parce que une élection boo xam dañ ne la le candidat sort le président sortant n'est pas nga xam ne le président sortant souvent mën nañoo gëm ne su nekkee candidat mën na am au moins trente pour trente à quarante pour cent de l'électorat ndax appareil bi mu yor son parti et tout ak l'administration ñi nga xam ne ñooy dundee réew mi te te ànd ak moom boole ceeg son coefficient personnel. Mm-hmm. boo xam ne mën na ko may mu mu dem. autour de cinquante pour cent sinon plus mais su fekkee ne le candidat sortant le, le président sortant n'est pas candidat mu am un candidat boo xam ne ñëpp xam nañ ne l'électorat de Benno élection yi di passé wane na ko 46 pour cent lay am donc Benno à elle seule mënul gagner une élection présidentielle te le candidat bi nga xam ne mooy Amadou Ba nga xam ne moom la bennoo tànn ne mooy seen seul et candidat amul coefficient personnel bu mu mën a dooleel benno c'est ça la vérité mu neex mu naqari looloo am li am mooy si Amadou Ba avait un coefficient personnel boo xam ne mën naka ko dooleel bennoo dañ naan kon sans Benno il aurait pu gagner aux wala mu gagner à Dakar wala feneen mais la seule élection bi mu mas a jiite à Dakar ñu gagné ko d'ailleurs c'est la seule bu APR gagné à Dakar depuis mooy en 2017 en 2017 ñoom Barthélemy Diaz waat nañ ne ñoom ñoo gagné woon c'est vers 3 heures du matin que le gars yi mm-hmm. résultat yooyu cela veut dire quoi que le président sortant bokkul. ñu ne la le principe la principale force de l'opposition muy Ousmane Sonko il il n'est pas sûr d'être candidat mm. donc ku wax ne bu nekkul candidat les jeux sont ouverts ils ont parfaitement raison de le penser que ni affaire bi ñu bari yaakaar ne sëgg for la mm. mais sëgg for boobu nag sénégalais ñoo ci am seen fulla bu mat sëkk mm-hmm. fulla bu mat sëkk mooy il n'est pas question de confier ce pays à des aventuriers voilà oui mu ngi noonu c'est important démb aussi su sama live bi ak Pape mm-hmm. mu ngi naan que candidature candidat yi nga xamante ne déposé nañ seen candidature niveau du conseil constitutionnel si au cas où par magie ñu euh, ñoom ñëpp aussi Euh, mën na servir dali bi peut-être à la DGE mu nekk dafa bëri lii yëpp mënuñu ko mënuñu ko jël en compte il faudra ñu reporter. ah non il a il a dit ah, nee na aussi est-ce que mënuñu ko analyser noonu. ah non kon genre benn genre prétexte mën nañ ko mais ce serait ce serait une catastrophe pour le Sénégal. Mhm. que l'administration le ministère de l'Intérieur bi ñu chargé ne ko nu organiser élection yi mu ne y a comme y a mënuma organiser parce que no s'il faut mettre deux cent bulletins sur une sur une salle de classe mhm. il faudra mettre deux cent bulletins mhm. que les tànn mais n'oublions pas que ni prétexte bi pouvoir bi jëloon mhm. pour daax pour indi parrainage c'est que en 2017 il y avait 93 listes je pense 93 ou 30 et quelques je ne je n'ai plus les mën nga vérifier avec euh, sa connexion rapidement il y avait y avait il y avait des dizaines de listes e si le pouvoir bi waxee ne mënuñu continuer nii parce que si ça continue comme ça mën nañ fi def élection boo xam ne on peut avoir cent candidats ñu ne kon nañ def parrainage que ça serve de filtre mais dama ne su fekkee ne def nañ parrainage pour mu nekk filtre mhm. malgré tout ñu valider euh, conseil constitutionnel valider soixante dix candidatures il va falloir mettre soixante dix bulletins ci benn table pour que les sénégalais choisissent parmi les soixante dix. Mhm. Mhm. loolu mooy démocratie. mais amul administration amul benn prétexte bu mu fi a teg pour dire oui yaa nangam je peux pas il faut prévoir ça. Mmh. parce que mieux vaut prévenir que guérir à plus que caution bi ñuy déposé à la CDC pour ça peut servir à l'organisation. évidemment xaalis beeg yooyu noonu. évidemment deux milliards cinq cent et quelques. yoo xam ne euh, caution dugg na dénk nañ leen ko ñu téye ko. Mm-hmm. mais n'oublie pas que ni ñëpp ñi nga xam ne dañoo yóbbu caution. Mm-hmm. te amuñu parrainage. Mm-hmm. ak ñëpp ñi nga xam ne yóbbu nañ caution am parrainage dem conseil constitutionnel su fekkee ne dañ leen rejeter seen candidature définitivement 15 jours après dañuy dem CDC mu delloo leen seen 30 millions. Mm-hmm. man nag foofu laa daak amee problème man pour man dañu waroon a wut benn loi boo xam ne. képp koo xam ne ne yëkkati nga sa loxo ne candidat la. Mm-hmm. ba yóbbu caution. su mm-hmm. fekkee ne rejeter nañ sa candidature ñu ne CDC da ciy teq nangam. 15 millions jox la 15 millions. Ah bu baax a baax. loolu bu kon bu subaa. doo fi nekk euh, ay candidats la. et la même la DG ci defe naa rencontre bu amoon ak journaliste yi. yàggul dara c'était 75 candidats. waaw yàggul dara ñu ngi doon wax ne. Mm. ils vont voir par rapport à ce qui se passe comment améliorer le processus man pour man amélioration yooyu war na cee bokk wax clairement waa euh, ñiy wut fiche de parrainage que ni ku jël si fiche de parrainage mais da nga fay bàyyi dara ci xaalis mhm. da fay bàyyi dara ci xaalis c'est important euh, il faut rappeler aussi que euh, ci point yi nga xamante ni conseil constitutionnel da ciy tënku mhm. démb rek Ibrahima Anne mu koy wax du mhm. rek ni peut-être yaa ngi ci fichier bi wala am nga parrainage mais aussi sa quitus dañ koy xool ndax yoreel nga xaalis euh, askanu Sénégal ou pas et pour man foofu de jar na taxaw jar a def attention mm-hmm. parce que ba léegi man amaguma ci information yu leer mm-hmm. mais dégg naa Mambay ñoom mm-hmm. te Mambay ñaa nag ku ko xam xam ne euh, lañ wax noonu rek naar bu ndaw bi lu mu wax ca berkel la ko dégg euh, lu mu la wax en général boo xoolee bopp Macky bii la muy xalaat soriwu ci te wax na fii ñëpp di dégg ci seen TV mu ne Karim Wade Khalifa Sall Ousmane Sonko kenn du ci nekk candidat. je crois que je ne sais pas moom seetaan ngeen ko or dégg nga fii li Ibrahima Anne wax keroog ne neuf pièces yi nga xam ne moom nga war a déposer. pour nekk candidat. da ciy bokk quitus fiscal. maanaam këyit woo xam ne day xamle ne man Salma Ibrahima Fall amee lu ma bor benn impôt. je suis quitte avec les les services des impôts pour wane ne ameeloo état au Sénégal dara. soo ko amul mënoo nekk candidat. est-ce moom mii Mame Mbaye dafa yëg lu ñu yëgul ci kaaw parce que kaaw Ousmane Sonko mënu ci yëg lu ñu yëgul ñu parce que lépp ngi ci l'espace public ñu koy waxtaane tous les jours mm-hmm. Mm-hmm. mais kaaw Khalifa Sall ak Karim Meïssa Wade est-ce que daf cee xam lu ñu xamul je n'en sais rien et de mm-hmm. toute façon dans quelques jours on saura a on l'a aussi mu nekk du jàppale Amadou Ba alors que mi ngi ci gouvernement Amadou Ba oui moo tax ma ne la ay biram man boo gisee buñ demaa keroog day jaar seen TV je l'ai dit ici ma ne je prendrai mon temps pour seetaan ko parce que c'est man quand il parle c'est pas Mame Mbaye Niang que j'écoute mm-hmm. <laughs> j'écoute quelqu'un d'autre ailleurs comme disait l'autre euh, dafa am un compagnon dans sa tête il y a quelqu'un d'autre qui parle à travers lui mm-hmm. j'ai l'impression que moom day jàllale rek mm-hmm. moo tax ma ma ne la dama koy dama koy déglu et quand il dit alors qu'il siège dans le même gouvernement que Amadou Ba chaque mercredi au moins ils sont ils sont ensemble il dit du ma ko jàppale du ma topp ci kudul Macky Sall mais dama ne wax jooju wax naan na ceeg Macky Sall ak soxnaam ñu d'accord ci. Mhm. wala boog le fait que mu wax ko naqariwu leen. Mhm. parce que am na yoo xam ne. Mhm. su ñu toogee fii di réunion Aïcha Diakhaté wax ko man waxuma ci dara c'est parce que naqariwu ma. su ma naqaree du ko wax. parce que pouvoir bi ma am ci moom moo tax. kii nag Macky Sall moo ko tiim di kilifaam te ñëpp ci nekk ci APR ñëpp xam nañ ne clairement c' est l' ami du président. c' est l' président wala est ce que kon ki ñuy wax. ni mooy booyam la mooy le candidat du président est ce que. <laughs> réellement kon mooy candidat <laughs> les internautes aussi nous aident nee nañ 47 listes la en 2017. moo tax ñuy def 2017 très bien 47 listes la woon. Euh, donc 47 listes aux législatives tey ñi doon wax ne Sénégal dañu war a def bulletin unique. Mhm. ñu bañ pouvoir bi bañ parce que bulletin unique nag intérêt bi mooy sàcc ci élection mënul nekk. Mhm. parce que bulletin unique bu la neexee ameel cent candidats. Mhm. benn fëy la ñuy jël def ci photo cent personnes yëpp. soo ñëwee loo ñàkk a jàng-jàng soo xoolee di nga xam ne photo bi photo Salma la wala photo bi photo Cheikh Tidiane Gomis su fekkee ne Cheikh Tidiane Gomis nga ngay voteel ñu def photo bind turam ci suuf Cheikh Tidiane Gomis moo boo mënul lire turam mën a xool photo bi non mm-hmm. wala nga ànd ko mën a xool su fekkee doo gis mm-hmm. wala nga takk ay lunettes soo gisee da ngay jël biig rek def croix daa daa di lemaat dem def ci enveloppe dugal loolu mooy bulletin unique mhm. nga xam ne doo soxla teg ay bulletins yu bëree bëri benn ngay teg rek ku ñëw jël benn dugg ci biir xool teg croix loolu c'est moins cher boo demee Guinée Conakry def nañ ko soo soo demee Gambie mhm. Gambie def nañ ko et dans beaucoup d'autres pays dans les grandes démocraties moom ñu bari moom la ñuy def léegi mm-hmm. mais Sénégal le pouvoir de Macky Sall nanguwu ko parce que certainement soo ko defee euh, ci la fraude bi di gën a jafe mm. en tout cas mm. euh, peut-être kon ñu dem ci deuxième sujet bi rek ñeel li ñeel la investiture euh, Ousmane Sonko xam naa moom bulletin unique bu ñu ko defoon pa ba doon wax Macky boo demee nga ne Amadou Ba moom du mën a voter Amadou Ba parce que xàmmewu ko <laughs> problème problème yi day démarrer comme loolu lay <laughs> waxi dëgg nag <laughs> te dina ci bëri morom lool. ñu ko xàmmee bëriwul ah ñu kal ko ci marron beige bi rek. <laughs> mooy code ah xanaa ñu def ko photo marron beige. ñu def Macky Sall ci suuf. tiir encadré alors mi ngi noonu ñu dem ci deuxième point bi ci linéaire investiture Ousmane Sonko bi nga xamante ne annoncé nañ ko le samedi 30 décembre. Mhm. Euh, mu war ko defee ci euh, bannière coalition Sonko 2024. Mhm. Euh, Moustapha. Mhm. donc loolu. jamono ji nag suscité na benn débat bu doy wax ci place publique bi. dama bëggoon a rek rapidement ci le conseil constitutionnel. pour bañ ci ñëwaat. xam nga les sept sages. Ibrahima a expliqué na démb lan mooy seen ay compétences lan lañuy lan lay mais ci contexte bii. lan la ñuy xaar ci les certifications pour man c' est important xam nga la tax. le conseil constitutionnel moom moo war a wax la droit. le di oui. que tey y' a même des lois suñ ko voté woon dañ koy jox conseil constitutionnel mu xool ba xam est que conforme na à la constitution. donc ñoom li ñu tekki. Mm-hmm. ci ci ci Sénégal dafa rëy dafa am solo. Mm-hmm. léegi le conseil constitutionnel dañuy xaar ci moom lu yomb mooy mu wax la droit. mooy képp ku war a nekk candidat. mu war a am benn mu war a ñu war a éviter mu am benn considération politique bu tax mu war a bañ a nekk candidat ça c'est un mhm. la deuxième chose le conséquence constitutionnel dafa tenir tey occasion bu rare mhm. mooy occasion wan Sénégal que ni le pouvoir arrête le pouvoir mhm. tey le pouvoir exécutif au Sénégal moom moo décidé ci coobaree boppam donc ne du exécuter décision pouvoir judiciaire le pouvoir exécutif moom moo décidé ci coobaree boppam donc ne du ma jox candidat tel ay bulletin le pouvoir exécutif moom moo décidé ci coobare boppam dong ne du ma jox candidat tel quittance pour mu mën a dem ne fay na caution euh, mm. Mm. loolu pouvoir exécutif def lenn rek moo ko mën a arrêté mooy le pouvoir judiciaire mm-hmm. moo tax tubaab yi dañuy jàngale lu am solo mu dañ naan le pouvoir arrête le pouvoir mm-hmm. le conseil constitutionnel tey dafa am occasion wane ne mën na arrêté le pouvoir. Mmh. parce que le pouvoir judiciaire peut arrêter le pouvoir. exécutif exécutif su fekkee ne def nañ ko. Sénégal lu pouvoir judiciaire les pouvoirs au Sénégal en général dañ ciy génn grandi mhm. la démocratie wu Sénégal da ciy génn renforcé su fekkee ne conseil constitutionnel defu ko mhm. dafay tekki lu garaaw salma xam nga muy tekk mooy bu ëllëgatee n'importe quel agent de l'État du Sénégal man mhm. na décider kan mooy nekk candidat ak kan moo ko dul nekk Cheikh Bara ko wax démb lu am solo la dafa jar a mhm. mooy su fekkee ne conseil constitutionnel dafa bàyyi lii direction général des élections def mu jàll. Mhm. mu jàll su ëllëgee man ngaa ñëw bëgg a nekk candidat dem di wusi di wuti casier judiciaire. Mhm. benn waaye toog ca bureau ca fa ñuy joxe casier judiciaire lank ne du la ko jox. soo demee conseil constitutionnel. doo nekk mu ne doo nekk candidat parce que indiwoo casier ñu ne lu tax ñu ne parce que benn waaye moo décidé ne du ko jox ça veut quoi que ni tey le conseil a l'occasion de montrer que ni moom rek. Mhm. moom rek les sept sages ñoom ñoo mën a décider kan mooy nekk candidat ak kan moo ko wërta nekk mhm. du aucun agent de l'État du Sénégal oui. aucun fonctionnaire de l'État du Sénégal mmh. même le président de la République du Sénégal nëpp peut pas décider mhm. kan mooy nekk candidat ak kan moo ko dul nekk tey su fekkee ni lii di xew nii dafa dañ ko bàyyi mu jàll cela voudrait dire simplement que ni Thientella Fall décider na ne diw du nekk candidat mhm. amul amul explication beneen wala boog la direction générale des élections pour bañ a tooñ la mhm. wala le ministère de l'intérieur wala le pouvoir en général le gouvernement décidé na mhm. ne Salma du nekk candidat yow mënoo ko nekk loolu le conseil bi war a te moo tax euh, les gens de de Pastef da nga daan gis fu ñu daan dem euh, pour déposer muy CDC euh, muy Sénat muy DG e, dañ doon ànd ak un huissier ku jàng droit la xam ko ci ni droit di doxe ci Sénégal huissier dañ ko cee prévoir prévoir liggéeyam prévoir li nga xam ne moom la def loolu muy bind noonu mhm. du bind Moustapha Diop c'est pas des articles de presse yoo xam ne da nga koy lire après nga sànni ko loolu dafa am lu muy tekk ci yoon te un constat dafa am lu muy tekki ci yoon buñ ko jëlee boole yëpp yóbbu ko ci conseil constitutionnel jébbal ko ko man mhm. dama jàpp ne le conseil constitutionnel doit se poser des questions simples mhm. j'ai un dossier de candidature ñu ne ma candidat bi mi ngi tudd Ousmane Sonko wala mi ngi tudd Salma Ibrahima Fall wala Cheikh mhm. ñu ne ma manqué na euh, je sais pas fiche de parrainage indi nay parrain mais fiche yi nga xam ne moom la DGE di joxe nekku le conseil doit se poser à mon avis une question simple mooy est-ce que li tax fiche de parrainage bi ñëwul c'est le fait de Ousmane Sonko moom mm-hmm. ci coobare boppam la. Mm-hmm. wala dañ ko koo teg. Mm-hmm. su fekkee dañ ko koo teg te conseil bi xam ne Ousmane Sonko amul wala boog Ayib Daffé amul benn possibilité wu weñ loxo wu. Euh, DG ne la di ngeen ma jox fiche par force. Uh-huh. wala mu dóor leen campagne ne di ngeen ma jox fiche par force le conseil doit en tenir compte. Mm-hmm. il doit en tenir compte oui. ah et puis on a la jurisprudence Issa Sangaré en 98. oui bi ñuy dem di déposer caution. ñu ne leen. oui que il euh, ah, y a pas de permanence ici genre kenn xëyul tey. ça veut dire que. du du du du mais boobu boobu na defe naa bi ñoom Barthélémy Dias dem ci élection locale xaw ma législative. amoon nañ des difficultés comme ça au niveau de la mm-hmm. DG. E. bi ñu demee euh, les sept sages ils ont tranché en faveur de de parce que dañu jàpp ne c' est pas à l' administration. parce que et puis loolu c' est simple à comprendre quoi mm-hmm. c' dire que administration du décider. Mm-hmm. kan mooy nekk candidat ak kan moo ko ñu ne léegi pour nga nekk candidat il faut nga indi certificat nga dem di wuti certificat médical benn médecin consulté la ne la yow dara jotu la tu es pour être candidat mais du ma la jox certificat médical parce que man APR laa far wala man PDS laa far wala man PASTEF laa far. Mhm. da nga da ma jox la ko ba pare. oui woowaat la ne la ministère de la santé nee na naa nga delloowaat ma eh, ko. exactement léegi soo demee conseil la naan non comme indi woo ko doon rek. man pour man c' est rare naa ne les juges du conseil constitutionnel li ñu ak un cas comme ils ont l'occasion mhm. de montrer que ni définitivement c'est eux qui décident mhm. et loolu et loolu Ibrahima an expliqué na ko démb le conseil constitutionnel dafa am tradition boobu nag mhm. parce que bi ñu fa amee un contentieux entre ñoom ak la cour d'appel de Dakar ci la Kéba Mbaye démissionné woon ñu jox maître Babacar Seye pour mu war a décider ñu ne le vice-président du conseil constitutionnel benn jour 15 heures lañ ko dóor bal fii ci corniche mu faatu le conseil constitutionnel dafa yàgg di di di ci ci ci ci ci niveau bu kawe su ma ko mën a waxee noonu. soo dee lire le livre de Ousmane Camara que j'aime bien rappeler ici. Mm-hmm. daf ci expliquer les grands juges du Sénégal à des moments précis ils ont dit non au pouvoir de Senghor à des moments précis ils ont dit non au pouvoir de Diouf. Mm-hmm. et le conseil a l'occasion de. de montrer face à l'histoire voilà, en tout cas. voilà ay sages lañ. oui ay sages on les a, on les appelle pas sages pour rien. oui ouais, ils ont le dernier alors, mot et mhm. euh, na la sànq question mais yaa rebondir ci. non investiture euh, samedi il y a deux choses. la première chose la première chose mooy man dama jàpp ne. Mm. <laughs> man euh, démb maa ngi koy dégg ba léegi. Mm. amul fenn fu ñu war a mën a teg pour interdire investiture. investiture et c'est très simple. Mm. Ousmane Sonko Sénégalais la wala déet. ah kay c'est un sénégalais. Bougane Gueye def na investiture est-ce que candidat la wuuru la. Anta Babacar du mhm. mhm. def na. est-ce que candidat la. Mhm. wuuru la Amadou Ba def na est-ce que la. wuuru la. Boubacar Camara def na est-ce que candidat la. wuuru la. keneen keneen keneen keneen. beneen doomu Sénégal bu bëgg def. man su ma xëyee sax suba ne tey damay woote buntu wal fajiri pour def sama investiture damaa am droit def ko. parce que waxaguñ fi kenn candidat la. bi ñu décidé woon ba conseil constitutionnel joxe la liste définitive des candidats kenn ñëw ne léegi man damay des ma investiture ñu ne ko nag na dakk parce que candidats yi xam nañ leen. mais comme xamaguñu kan mooy candidat. Mhm. ku nekk am nga droit def sa investiture. après bu la conseil décidé <laughs> ñu tënku ci. Mhm. parce que ku ci tënkuwul it amoo beneen choix. bu doon ci dëkk bu yow bu normal lañ nekk. bu doon ci dëkk bu normal. Mm. mais justement dañu war a ne ci dëkk mm. ko war nga. Euh, nekk ci dëkk normal. Mhm. waruñu ko bàyyee rek le pouvoir muy décider ne tey ci dëkk bu normal la nekk ëllëg nekkuñ ci dëkk normal c' est une exigence démocratique. Mhm. bu chaque sénégalais war a exiger ne dëkk bi dëkk bu normal la war a doon. mais su fekkee ne dañu war a ñun suñu bopp. Mhm. ñuy raisonner naan non war nañ ko mën a interdire parce que nekkuñ ci dëkk bu normal y' problème. et là pour man. Mhm. dañu am droit def ko. suñ ko defee après ñu valider seen candidature c'est bon pour eux. Mhm. suñ ko validé wul ñu seeti leneen. mais niveau de stratégie bi bi bi Ousmane Sonko je dirais pas mais mhm. Ousmane Sonko niveau de stratégie bi mu nekkee parce que man bi ma xëyee ñu ne gis list ñi déposé conseil constitutionnel ma gis ci turu Ousmane Sonko te à un moment donné gisuma benn moment bu presse bi waxee que Sonko déposé na ou pas maanaam dañ ko def ci stratégie bu mag a mag a mag est-ce que jarul ñu bàyyi ko xel. man toog naa fii àjjuma fii laa toog ma ne leen Ousmane Sonko va déposer sa sa candidature. Mm-hmm. au conseil constitutionnel jour boobu nga taxaw fii ne ma comment. Mm-hmm. amul amul lii amul lii ma ne la ak lu mu mënti amit dina ko déposer. si déposé na wala déposer wu. déposer na nee naa la fii Ousmane Sonko ne sa pas seul à déposé candidature mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye dina fa dem mm-hmm. wax naa la fii ne la am na ci yeneen sax yoo xam ne Ousmane Sonko bi moo ko décidé te yow xamoo ay mm-hmm. pion la Ousmane mii ca prison Cap Manuel be mu toog am na candidature yoo xam ne waxuma bosam ak bu Diomaye parce que yooyu ñëpp xam nañ ne moo ko décidé mais am na yoo xam ne moom moo ko décidé ne candidature yi dañ koy déposer conseil constitutionnel tas fanaanal léegi ce qui va se mooy su fekkee ne validé nañ validé nañ candidature Ousmane Sonko. Euh, mu nekk la paa ba sant Seck doon paa ba doon théâtre ca Ndar doon ànd ak. Golbert Golbert Diagne. mu ne kii Mansour xam waaw mu ne c'est fini juluk tubaab. Mhm. su fekkee ne. validé nañ candidature Ousmane Sonko c'est fini julli tubaab voilà amul y a plus rien à dire on mm. va en campagne et comme euh, li li ndongo euh, l'ancien basketteur là ndongo ndongo Ndiaye di wax mm. balay 10 heures Ousmane Sonko gagné mm. ñu jàll ci leneen <laughs> su fekkee ne validé wuñ Ousmane Sonko on va voir est-ce que danañ valider candidature Bassirou Diomaye Faye suñu validé wul <laughs> candidature Bassirou Diomaye Faye <laughs> le conseil constitutionnel va valider candidature boo xam ne Ousmane Sonko moo ko proposé il il il va le il te man dama dama dafa am loo xam ne moom laa ragal. Mhm. mooy élection yi ñu jëm Ousmane ko bañ cee bokk ba pare mu nekk référendum. Hmm. xam nga référendum mooy lan. mooy est-ce que d'accord ngeen ci ni Macky Sall yore réew mi pendant douze ans. te buñ ko defee noonu bu buñ deful ndànk ci lay gën a métti ci pouvoir Macky Sall bii. Hmm. ak candidat am hmm. parce que Sénégal yii ma gis. ñu ci bari ci ñoom naan élection yi comme tabaski lay doon dañuy xëy suba solo ba rafet dem vote yi ñëwaat toog mm. suñ deful ndànk dinañ régler mbirum Macky Sall mbiru candidat Macky Sall avant 10 heures mm. donc li gën pour man mm. mooy fexe ba organiser une élection transparente ñi ci war a bokk yëpp bokk ci mm-hmm. su ko defee candidat au pouvoir am nay chance mu dem défendre ay chance am mm-hmm. les de l' am nañ ay chance ñu dem défendre seen chance et man li ma gëm mooy su fekkee ne ñëpp def nañ seen ay candidature ci yoon élection bi pour man dama ko mën naa juum de. Mhm. mais pour man ça ne peut pas se jouer au premier tour. ak xëy na mën naa am candidat bu jege lool les cinquante pour cent. Mhm. mais jouer ko au premier tour pour man ce sera difficile. ñu dem deuxième tour. ku mën sa morom Abdou Diouf jaar dafa Abdoulaye Wade jaar dafa ñu ngi nii continuer di dox seen soxla su fa Macky Sall ak kandaawam jaaree aussi ah, amul problème amul ñu ngi lay jaajëfal <laughs> jërëjëf <laughs> bu baax a baax yow tamit Salba ñu ngi lay jaajëfal Moustapha mm-hmm. euh, bu baax a baax yow tamit jàpp na ci euh, anniversaire bi démb euh, yàgg nga ko taxawee jaajëfal la Diop bu baax a baax a baax mais jaajëfal également PDG Cheikh Niass kado bi ah, am na doole waaw kado bi am na doole lool non kado bi am na doole <laughs> sama ma gën kado bi ñoo ko tëggoon <laughs> nga yow daan nga dugal mais léegi da ngaa bàyyi